nga jël ci ñaar nga ba tey ci seen scandale du jour de ce 24 juillet ñu déglu ji kàddu Abdoulaye Diallo yi mu yëkkati Abdoulaye Ndiaye kàddu yu mu yëkkati. ci 100 jours yi gis naa ne am na ambulants yoo xam ne président Macky Sall leen préparé woon parce que dafa xam ne Sénégal 150 000 personnes ñooy accès l'emploi par année mais 6 pour cent ñoo ci am formation président Macky Sall ne léegi loolu pour ñu régler ko. nañu yokk njàng mi mu tabax 40 000 salles de classe ñu ne président Macky Sall loo ciy teg mu ne département bu ci nekk nañ fa tabax benn centre formation professionnelle département yi gën a rëy nañ fa tabax ñaari centre formation professionnelle loolu bi ci président Macky Sall noppee mu ne nañ defaraat ay INSEP ci département yi ñu pare mu ne nañu defaraat encore lycée technique ci département yi ñu pare mu ne nañ defaraat ci mu ngi 8 universités fi def tabax nga yem mu ne 150 000 personnes yi accès à l'emploi par an nañu leen yóbbu centre formation professionnelle ak INSEP yi ak lycée technique yi ak lycée de métier yi ci benn université yi bi mu ñëwee ci département de xam ne amul université université Cheikhoul Khadim la def projet bu 8 milliards pour faculté de métier ci biir université Cheikhoul Khadim mu ne léegi nañ ko defar parc industriel yi mooy parc industriel yi ngay dégg Diamniadio yaa 19 usines yaa parc mécanique bi président Macky dañuy bay lu bëri lu tooy mais amuñu ay sant euh, yu koy conserver mu defar benn jëm ñaajo mais def na région yëpp na ko am na am industrie laitière industrie de transformation te képp ku ñu yóbbooti nañ la formé ba pare moo tax département yëpp am ay centre de formation kon boo yoree nguur gu toll ne nguuru Sénégal émergent nga xam ne fi mu jëlee Sénégal ak fi mu ko yóbbu tey nga ñëw fekk président boo xam ne bi mu ñëwee fekk na zéro ligne ferroviaire mu ñëw defaat bu yóbbuwaat ko jëm ñaajo ne terre bi day dem Mbour day dem Thiès defaraat ligne ferroviaire bi jëm Tambacounda defaraat ligne ferroviaire bi def Dakar Thiès defaraat ligne ferroviaire bi jëm Touba té ligne ferroviaire bi jëm Louga ñu ngi koy defar koku def na infrastructure yu bari yu bari ci teew mu ñëw fekk RN2 ndum la ko fekk mu def ndum sogi Ourossogui sogi Bakel Bakel Tamba autour apas mëna nañ jël jaar ni dem Kédira motax ñom biñu jëlé sen projet bobu ñu defoon ñëkuna génné né ne dañu am ay pôle xam nga lan motax pôle yi ñemeetuñ ci wax mhm. dañ génné ay ligne ferroviaire fu am ay autour apas ki dafa xam je dis pas Macky dafa mën mais Macky dafa xam Macky dafa mbapat Macky boo toogee déglu jaar-jaaram ci mbirum politique euh, je vous conseille dem leen sur YouTube ngeen tapé documentaire bi jàngale Macky Sall de temps ba tey Macky Sall jëmm ji mu nekk di nga gis ni wax dëgg fa yàlla ku sañoon am doom bu mel ni moom parce que amul dara lu ñuy wax ci ñoom loo dul bëgg sa doom nekk ko bu dee maire ku sañoon sa doom nekk maire bu dee premier ministre ku sañoon sa doom nekk premier ministre bu fekkoon président assemblée nationale ku sañoon nga nekk ko ministre ci côté pétrole ku sañoon nga nekk ko ku sañoon nekk dégg daali nag daali mooy président de la république ñaari yoon ñu ñu voté la 2012 2019 ñu renouvelé la ko avec 58 virgule quelque pour cent kon Macky Sall néew ma mën na waaye xam na mënul waaye xam na nit a ngi xam te du mën nit a ngi mën te du xam xëy na ñii mu xam nañ mën nañ mais xamuñu fu ñuy jaar ba exercer xamuñu xam-xam lu am solo la xam-xam ak am volonté dafa am solo ji doomu aadama Macky Sall dafa xam Macky Sall dafa mbapat Macky lii bett ko da koo da koo da koo da ñàkkante waaye Macky Sall diggul Sénégalais yi lu mu munut waaye kenn mësul de yaa fi waxoon lii defoo fi lii Sénégal émergent foo tourné ci réew mi di nga ko gis plan Sénégal émergent kon gàcce ngaalaama à Macky Sall ñu ñaanal ñi fi nekk nag ñu def lu raw li Macky def donte li ñu commencé ah tiit jot na mais nag il n'est jamais trop pour bien fer mu ngi noonu. yoon liggéey bi fii waay